salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy déglu ak di ñu topp am nañu mbégte dellu siwaat fii ngir wéyal suñu jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci uh, injil rawatina ci téere màcc ñu ngi leen di sant di nuyu kenn ku nekk ci turam ak si santam di leen fàttaliwaat rek ne mën ngeen jokkoo ak ñin ci numéro yi nga xamante ni moom ngeen di gis wala ngeen bind ñu ay seeni commentaire ci suufu njàng yi bu ko defee ñu mën a wecc ak yéen ay xalaat ci li ñu jàng numéro boobu tamit am na whatsapp mën ngeen jokkoo ak ñun ci whatsapp donc jukki bi ñu ngi ko tuddee yaa yaa sunu yaakaar donc euh, tàmbale woon nañu jukki ci euh, te Matthieu comme ni ma ko waxoon rek Matthieu ab taalibe la woon boo xam ne bokkoon na ci fukki taalibe ak ñaari yéesu amoon te ab juuti la woon tey bëgg nañoo wéy sunu njàng ci euh, saar juróom-ñaar ci téere Matthieu xool lan la yàlla wax ci ñaaw njort ak àtte sa moroom bu leen àtte seeni moroom ak ñaaw njort ngir bañ ñu àtte leen yéen itam ndaxte dees na leen àtte ak ni ngeen di àtte natal leen ak li ngeen di natale lu tax ngay xool ñax gi ci sa bëtu mbokk te gisuloo gànj gi ci sa bët yow wala nan ngay waxee sa mbokk may ma ma dindil la ñax gi ci sa bët fekk gànj a ngi ci sa bët yow naa feq jëkkala dindi gànj gi sa bët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 ngeen leen di xàmmee du képp kuy wax borom bi borom bi mooy dugg ci nguuru yàlla aji kawe gi ka cay dugg mooy kiy def sama coobare baay bi nekk ci kaw bés ba ñu bare dinañu ma wax borom bi borom bi ndax ci saw tur lañu daa waxee ci kàddu yàlla ndax du ci saw tur lañu daa dàqe ay rab ndax du ci saw tur lañu daa defee ay kéemaan yu bare ci kaw loolu dinaa leen wax dëgg ne leen mosuma leen a xam sorleen ma yéen ñi def baakaar képp ku dégg nag li ma leen wax te dégg ko te di ko jëfe dinga mel ni nit ku am xel ku tabax këram samp ko ci doj ba mu noppee taw bi daldi soob wal mi ñëw ngelaw li jóg ñu dal ci kaw kër ga waaye màbbul ndaxte mu ngi jàpp ca doj wa waaye képp ku dégg li ma leen wax te jëfewuloo ko dinga mel ni nit ku ñàkk xel ku tabax këram ci gannus bi ba mu noppee taw bi daldi soob wal mi ñëw ngelaw lu jóg ñu dal ci kër ga mu màbb ba ne tesar bi Yeesu waxee loolu ba noppi mbooloo ma daldi waaru ci njàngaleem ndaxte jàngale na jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul kon gis nañ ci lu ñu mën a tënk rek mooy borom bi dàq na ñuy ñaaw njort di àtte suñuy moroom ndaxte nee na ni ñuy àttee suñuy moroom noonu la ñuy àttee tamit ni ñu nattalee suñu moroom nattukaay boobu lañuy jëfandikoo ngir nattal ñu tamit yàlla it dina nangu ñaan ku gëm booy ñaan yàlla dafa war a ànd ak ngëm ndaxte loolu kàddu ku wax dara jombul ku gëm dara tawul ku gëm ñu wax tamit ni bunt bi nga xam te ni moo jëm ci de bunt bu yaatu la yoon bu yaatu la te ñi koy ñi koy jël dinañu bari waaye bunt bi nga xam te ni moom moo jëm ci dëgg yoon bi xam moo jëm ci dëgg bunt bu xat la te koy gis dinañu néew Yeesu tamit joxe na misaal ci ñaari nit ñoo xam ñoo tabax seeni kër kenn ki tabax këram ci doj bu dëgër samp ko ci doj bi kooku mooy kiy dégg kàddu yàlla te di ko jëfe ki nga xamante ni moom mooy samp këram ci gannus bi mooy kiy déglu kàddu yàlla waaye du ko jëfe li leen wutale mooy bu ngelaw bi ñëwee taw bi ñëw duus si gannu si kër gi du yëngatu ndaxte ci doj la samp maanaam ci kàddu yàlla gu wóor gi waaye ki nga xam dafa jël këram wax ko ci gannuus ci suuf bu taw bi ñëwee ngelaw bi ñëw kër gi dina màbb ba ne tasar ndaxte kër gi samp ko woon ci doj wu rëy doj wu rëy woowu di maanaam kàddu bi yàlla kon ñu leen di gërëm di leen sant leen wax jërëjëf di wéy ak yéen tamit ci benen sar bi nga xamanteni mom mo top ci sar juróom-ñaar bi sar juróom ñet ci téereb Màcca jërëjëf yeen ñi nga xamanteni yeen ñi doon top ci suñu page youtube e di leen wax ni jërë ngeen jëf si li ngeen di wéy di ñu top di sétane vidéo yi te di leen ñaan ngeen mën ngeen ko partager ak seen ay xarit mën ngeen ci waxtaan te itamit su ngeen ci amee ay laaj mën ngeen ko mën ngeen ñu ko laaj mën ngeen aimé waaye itamit mën ngeen abonné wu itamit si page bi bu ko defee di ngeen mën di gis vidéo bees yëpp yi ñuy dugal si jàngaleb yonent yàlla insa jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel